ni nga xam ne ay nit ñu ngi koy roy ne la ay nit di jub di jébbaloo ci lislaam bi bu ñu déggee sama kàddu gi ñaari nit mën naa loolu jébbal kenn ki dégg naa trop waa xam waa kenn ki moom xam naa ko wér jàngalkatu France la jàngal France ba jeexal ko defoon gardien ci bënd kër Sëñ Saliou ba mu déggee sama nag déggaat ko ci yàlla def mu dugg ci lislaam bi yor di français di jàngale nga xam booba mënutoon dara waaye jàngoon na ba xam li mu war a xam lépp ci français bi sëriñ Mor Sy di kenn ci noddukatu jumaay Touba ju mag ji ni ni ngeen ko déggee baat bi bile tubloo na si dugal ci lislaam waaye gëmm loolee nag fason ba muy noddee am na ci wàll. su ma la waxee fan la bàyyi ko danaa wax lu ma xamut walla sunu borom moo def ma yëkkati ñaar yu yëkkatiwaat air bi dëppoo ni nga xam ne moo neex doomu aadama rawat na sëñ Saliou Mbacké mi nga xam ne. moma ci duggal bi nga xamé né tàmbali na ko ci kanamam ci dara ja ba ma noddu ba nopi ba wala timis xam degg na noddu gi way xamul kan la ma dik tooga mo mu ne ku daan mal, wow, ko man mo wa gor say jotté demal waaw bo ma ci dara ji di jangal alcorane ay gonam mo say jotté demal waxtu wi jot timis mu ne ma may jug bëgga dem mu ne ma kaay kaay ma dikk mu ne ma nodd gi ak lixaam gi lépp aw la yoon waaye da am ñaari baat yoo xam ne da ko ràññiliwut ma daal di àgg suuf diglu ko mu ne ma fekk ne da ngay noddu ashadu an laa ilaha illallah ngay wax waaye bu dee lixaam ashadu anna muhammad ashadu an laa ilaha illallahu waaye doo wax laa waaye ñaari baat yu dong nga ràññiliwut ci nodd gi ak liqaam bi waaye lii lépp noonu la demal nga xam ne lii la moom mujjee jàngal ci nodd moom sëñ Saliou Mbacke bii façon nodd ci masax bu Malick lan jël li nga xam ne kay mel ko war nodd ñëf ñeenti allahu akbaram waaye ñooñu mën noo jël suñu bis bii tey suñu nodd ko ne lay formé xam ñun daa min dañu dañu tënk ñun dañu tënk suñu daal suñu daal tënk ci aleykum bil malikiya dénk naa leen ngeen roy njàngale imam Malick moo tax mu lay roy te ñu nodd nag du jàll da nga am koy sant am nag ñu ko ñu ko bëgg ñu ko def waaye ñun forum bii daa gën dëppoo ñun ci am njàngale Sëñ Tuubaa moom nag ni ki atum 2004 la tàmbali liggéey bi ci bërëb bii. Sëriñ Tuubaa Cheikh Salifou Mbacké moo ñu joxoon digal ñu nekk ci bañ ko tàmbali ak tey yàlla dogal na. bis boo xamee ni dara méttiwuñu amuñ benn ngant ñu ngi nodd muy fajar ji salaatu xayru minan naw mi ak tisbaar ji ñaari waxtu yi ba ñëwee ci liggéey bi lañ ñuy jox ñu féetuwu ko jëmmi nodd gi nag juróomi waxtu la juróomi waxtu julli yi ma seq juróomi nit. waaye nag daara bi ñoo leen contrôlé ku ci nodd ku ne ba mu dab la moom lu koy wax. ba tal ba nga nek am ko nodd am ko nodd ki nodd fajar moy nodd fajar ak tisbar am ko xam tak sang lay nodd no timis am ko nodd njëkk ku ci bokk mom bu sox jote mo xam na tang mo xam muy taw jumaa mom yoy yooyu moom ko du Serigne Mor si di delu si sax ci nu sas bi yegsee ci kawam ci ndimbalu Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou jëmbale jo xam yalla sunu borom moko ko nattu mu bëgg alquran bëgg jàkk bëgg liggéey di yar doomu aadama yi di leen tërbiya di leen tarqiya di leen tasiya ba nga xamee ne defar naa daara jooju yóbbu ma fa ma nekk fa mu def fa jàkk ma fa nekk di noddu waxtu julli juróom yi ba yàlla suñu borom dogal mu am ak coppeeku ci man na ma ab teelu bi de du wàcc de sëpp liggéey kay dem ci kër ga bo yëgee lo xamé bo ci nekké dañ la amal jering, nga ñu wax mako ko ci dara waré ma def ko man it su ma yëgee loo war nga caa nekk té man ko ma wax lu boko mané nekk ci man ko baax na ma da tell sama wax mu ñaanal ma dem tok ab mu ndaw ci man jox ma ndigal may nodd ci jumaa nodd gi nga xam ne ñu ngi koy amal ci bërëb bu sell bi di jumaay Touba nag ni waxtu julli rekk juróomi doomaadama aadama ñoo ko séq moom sëriñ Mor nag ñu jagleel ko ci fajar ak tisbaar